privilégie la presse de proximité. عطاء ختم من الرحمن والجواد أتاه ختم ختم كل سنة الدلول أتاه ختم من الأفواد والكاف ألفا وإفا ما يماسه بشر آله من سائر الجود أقل من سخايا رجاك فلا يواصل روبه وعليه من سائر الجود من زمان خلفاوي أو أسماء الوبل في أهوه من عامرا لا أسمع الناس خرقا فيه جدوى أو أسماء الوبل في أهوه من في الناس خرقا فيه جدوى suñu kaw nee na kenn mënu koo lim bokk na ci bokk na ci may nañu may nañu ak wér ba ñu mën a teewee fii ñoo ngi ko ciy sant ñu ngi ko ciy sant te it diñ ko ñaan mu dolli nee na kàddu yi muy yëkkati nee na mi ngi bàyyeekoo ci soxna Penda Ngane Sougou mu jottali ko mbooleem ñi fi teew ci bër bërëb ak ñi fi bëgg agsi te agsee guñu nee na kàddu yi nag ay ngërëm la nee na tàmbalee ko ci sunu kilifa muy monsieur le maire Pape Madiop Diop nee na ñoo ngi koy sant te it di ko gërëm ngërëm loo xam ni nee na fa mu tàmbalee du tey nee na daje nañ sànq ci suba ci ab tudd mu xamal ni ko nii nga mel ba dara ñëwagul ba dara it ñëwagul noonu nga mel noonu nga mel muy gën rafet waxtu muy gën di rafet waxtu ne ñu koy ñaanal yàlla ñu koy ñaanal yàlla yàlla yëkkati ay darajaam ba mu kawe te musal ko ci lépp luy lor di sant ñëpp it di gërëm ñëpp nee na professeur ji bi jaxate mi fi jóge léegi nee naa wax ji mu wax gàtt na waaye tegtale na ne arab yi dañuy wax ne wax ju gàtt tegtale moo gën wax ju bari te amul njariñ kon professeur Djibi Diakhaté ñoo ngi koy sant ñoo ngi koy sant di sant nag waa rajo Afia gi yëpp tàmbale ci euh, directrice Penda Ngane Sougou ak ñi koy jàppale góor ak jigéen ñoom kum maam ak ñoom ñëpp ñoom Fan Ndiaye ñoom ñëpp ak oustaz imam euh, imam Yande Faye nee na ak man mii di wax ak moom ak Moussa Traoré Ousseynou Thiam ne xam ne ñoon ca wàllu diine ñoom fa la ñu féete Momadou Fall ñoo ngi koy sant ci taxawaayam ci cawarteem ci ay kàddu yu rafetam nee na Pape Madiop ñoo ngi lay sant bu baax a baax di la yokk di la ñaanal waaye nag balaa ñoo jeexal waxtaan wi danonoo def ab dog ñaanal suñu doom oustaz El Hadji Mansour Mbathie xam leen ni taxawaayam feeñ na fi lool ak wuuteem feeñ na fi waaye di sant nag sunu waa jumaa nga xam ne biig rek la leen ko wax ne leen ne xar kanam yëpp xàmme naa leen ñëpp naa leen fi gis donte amu leen carte ne sëriñ Abou Cissé mi ngi ne toog ne ca kilifa jumaa ji la bokk mi ngi nii toog ak ñeneen ñi ma gisagul ñu ngi sant ñëpp monsieur Diagne monsieur Diagne maître Diagne maître Diagne man xaw woon ni noonu la demee ne xamul woon ni noonu la nga demee xam naa ko bu yàgg nee na xam na la bu yàgg ca te tribunal la la xamee waaye musul xam ne mbokk maam Kumba jaañ nga nee na mësta xam lool nee na kàddu yi rafet na ñoo ngi koy gàttal fii di leen sant di leen gërëm mboolem ñi nga xamante teew lañ fi yàlla nañ fi teewaat déwén amin ñu jàng faatiha ñetti yoon yéene ko Mansour Mbàcc ak mboolem ku feebar ak ku am soxla ak lu mu doon lu mu lu ne ñu sàkku ci suñu borom yàlla may ko wér te may ñi tëdd ñëpp wér yàlla ñu nit yàlla fekk suñuy fan ñu teewaat fi déwén ci barki Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam amin amin allahuma amin allahuma imam jërëjëf kum taala wa barakaatuhu doo ngi nuyu mbooloo bi yëpp ci dafa yëpp ñu ngi leen di nuyu ci wàllu aada gi ci wàllu politique ci wàllu diine yéen ñëpp ñu ngi leen di nuyu di leen ziare alhamdulilah ala kulli xaal di leen jaajëfal ci teew bi ngeen teew bàyyi seen yitte yëpp ndax wëllëre bi ngeen wëllërante rajo Afia euh, sëñ ji bi jaxate nag dafay jot jaar dootal fi ay kàdd ñu bëgg a tënk lool rek màndaxe ko ci lislaam ndax loolu moom moo ko jàng woon mooy socio socio sociologie loolu lislaam da ci am taxawaay gu mat sëkk te kiñ ciy jël nag di référence mooy yonent bi alayhi salaatu wasalaam nga xam ne insaanu shaamil la woon yonent bi dafa am ay aspect aspect lool loolu tax walakum fi rasulillahi uswa la yàlla wax waxul xudwa xudwa mooy ngay roy nit ki ci fànn nangam ci fànn boobu ci nga koy roy bu jeexee jeex na fa la yem uswa nag mooy ngay roy nit ki ci fànn gu mënta doon yonent bi uswa la boo demee ci aspect sociologique da nga ci gis loo ci mën a roy ci moom diine moom loolu lañ ko joxoon mission mooy loolu bu dee ci wàllu médecine lu mu ca wax tegal sa loxo foofu jëlal bu dee ci wàllu sociologie te foofu laay ñëwee lu mu ca jàngale lu mu ca xamle xamal ne loolu day na sëkk ni référence yonent bi alayhi salaatu wasalaam bi muy jógee màkka di dem Medina avant sax muy jóg màkk muy jógee màkka sax di dem Medina màkka googu mu nekkoon ci wàll sociologie loolu tax may faral di wax naa balaa ngay jóg di def daawa di waare di jàngaate maanaam di jéem a li ñuy wax tablix ni ko gars yi di waxee da ngay fexe ba xam sociologie bi ngay dund ñan lañu si ngay xamee ñi ngay wax dangay ngay dem jàng yi nit bokk demal nga jàng ji nit balaa ngay dem waaraate ji nga xam itam waa réew mi lan mooy seen sociologie bi maanaam lan mooy seen taqaadir lan mooy seen coutume lan mooy seen aada lan mooy seen mbaax yonent bi alayhi salaatu wasalaam fa tàmbalee nag ca ba muy gune ñu yóbbu ko ca monde rural ba maanaam ca àll ga fa yaroo jël ca tuuti ca wàllum péex maak làkk wi muy làkk arab di delloo ko nag Madina Makkatal Mukarrama la ca des ci wàllu formation bàyyi taxam yi ñoo ko def ndax bàyyam génn na àdduna bu yàgg nga gis nañu daan dundee arab yi ci wàllu sociologie dañuy jël euh, di dimbalante ci famille bi ndax Abdullahi ibnu Abdullahi ibnu Abbas ak ki nga xam ne mooy Abu Taalib ñoo bokk baay waaye Abu Taalib dafa njaboote woon ci la ñuy gis na ni ñoom famille bi nañuy jël njaboot yu ndaw ndawaan yi yi nga xam ne Abu Taalib moo leen njaboot ñu séddale leen ci biir mbokk bi maanaam ci doom baay gi noonu lañ leen séddale kenn ku nekk jël looloo waral Ali yonent bi alayhi salaatu wasalaam féetewoo ko mu nekk rakkam lenq sës ci moom rëkk te rëkk ko mu delluwaat may ko so soxna muy doomam muy Faatima lépp nag ngir defar mbokk gi ci la yonent bi alayhi salaatu wasalaam dem ba damay tënk rek ndax kilifa yi war a wax bari nañ macha allah te damay jégalu bu baax a baax bañ leen fii téye ba noonu la gàddaay bi mu gàddaay dem Medinatu Munawara la mu fa njëkk a def mooy dafa intégré wu ci sociologie médinoise balaa muy lijjante lenn gannaaw ba mu lijjante jàkk jumaa ji fi ñu ko war a samp la mu njëkk a def mooy intégré ci sociologie bi muy jël ñi nga xam ne mooy muhaajiroon yi mooy ñu ñi gàddaayoon jóge Màkka dem Medinatu Munawwara mu mbokkale leen mooy al muaaxa dañ koy wax sax jumelage mais au delà de cela yonent bi weesu la woon sax jumelage fraterne euh, mus fraternilisé da leen mbokkale woon bokk waa Lansaar ak waa wala sa mooy waa Medina muhaajiroona mooy waa Makka mu mbokkale leen ba ñu jaxasoo mbir ma sax yeggoon na ci sax yonent bi alayhi salaatu wasalaam day téye ci loxo muhaajir téye ci loxo Medine euh, waa Medine boole leen mbokkale leen ni yéen ay mbokk ngeen xam nga loolu xarit sax weesu na foofu mbokk laa wax de ba ñu demoon sax ba saxaaba yi yaakaar ne sax war nañu mën a doonante wala euh, doonante ci seen diggante yonent bi alayhi salaatu wasalaam day leen léegi day si yeggul foofu waaye ci seen xër rek. gis nga yonent bi alayhi salaatu wasalaam siñanteeg pacte yi ñi nga xam ne mooy yahud yëm fa fekkoon maanaam ñi nga xam ne bokkul ak ñoom diine yahud yi ak nasaraan yi pacte bi mooy lan mooy société bi ñoo ko bokk maanaam pénc bi ñoo ko bokk kon lu koy yàq nañ ci taxaw ñun ñëpp wagar ci fagaru ba fekk loolu ak lu ñu mën ak lu ñu mën a wuutee xalaat nag ak gëm-gëm ak pas-pas waaye ni ñuy fexe ba lépp luy dugg Medina te bokk fi li yàq mbokk bi li yàq dëkkandoo bi nañ ko fànq waaye li koy defar li koy digëral nañ ko dooleel yonent bi alayhi salaatu wasalaam noonu la nekkoon un homme intégré ba defar société bi Medina daa di nag politique ku la ne islam xamul politique bañ a politique day politique homme d'état la woon état la doon gérer mais ne politique ba mu daan doxal nag ah wuute nag suñuy yos yi de ci liñ ciy gis ndax politique bu sell maanaam politique bi tubaab définir boobu la doon doxal nga xam ne boo demee ci dictionnaire yëpp da nga leen di fekk monsieur le maire te mooy gérer sa société di moom nga def nii lii mooy politique mu ngi nii politique a ngi nii fexe ba waa gox bi ñi la nga liggéey leen loo xam ne li yàlla subhaanahu wa taala nee na i'malu wa sayara Allahu amalakum liggéey leen je vais voir ngeen rendre ma compte soo leen liggéeyee rek soxlawu ngeen di def sax ay bilan yu bëri yooyu parce que nit ñi ñooy constaté ba xam ne lii yaa ko liggéey ñoo lay falaat nit ñi gis nga lii bakkan bi moo tax bëgg jàmm bi mu bëgg jàmm moo tax yàlla poosé ko fii jàmm rek la nit ñi bëgg ku leen doxal ci jàmm di leen di leen fiixal yàlla xam ne ne dana dana la jàppale dana la téye waaye nag ku leen nar a toroxal nag ñu toxal la seeti keneen kon yàlla na yàlla aar sàmm la yoon wi nga tegu itam macha allah fekk si na itam li nga xam ne moom la lislaam jàngale mooy bu ñu la falee ndax nangam jublul ci loolu nga xam ne loolu lu sa mbiru personnel askan week fere yi ñoo ko moom te yàlla gërëm la nit ñi gërëm la am na solo de bu la nit ñi gërëmul sax yàlla gërëm la te sikki saako ne boo defee lu baax rek gars yi dañ la gërëm kon yonent bi alayhi salaatu wasalaam ci wàllu sociologie gis nga ko noonu la ñëwee woon ci Medina liggéeyal waa Medina liggéey gu mu ci ayib ci intégré leen maanaam ñu jaxasoo nekk benn ñu joxante loxo donte nag wuute nañu ci pas-pas wuute nañu ci gis-gis wuute nañu ci gëm-gëm waaye da leen ne pénc mi ñun ñoo ko bokk suuf si ñoo ko bokk réew mi ñoo ko bokk nañu fexe ba jagal ko kenn ku nekk nag la nga gëm nag bu boobaa nag su la yittelee nga defi ko waaye jotewul ak pénc bi nag ñu war koo defar alayhi salaatu wasalaam un homme intègre chamil la insaanu chamil la woon suñ ko royee rek du ñu am benn problème problème bi ñu ñu am muy ñun ñi ustaas yi rawatina ñun ñi xam ne ñooy doaat yi ñun benn aspect rek la ñuy demee pour ñun daal dañu contextualiser mbir yi islam dañ koy contextualiser fu mu toll rek am na l'islam lu mu cay doxal ak lu mun a doon nag indi na ca pexe waaye nag dëgg man rek alaxira alaxira waraate yëpp loolu lay doon su ko defee gars yi looloo tax ñuy dem toxu parce que seen soxla seen yitte yii la ñuy laaj waa lislaam li mu ci am pexe yow nga jàpp ne lislaam li mu ci am pexe daal mooy toogal nga muñ noonu boo dee rek yàlla dana la euh, yàlla dana la dugal aljanna muñal ci loolu rek te lu fekk nag lislaam bi na ca pexe wax dëgg yàlla ca ñàkk xam ak ñàkk a jàng professeur ji bi jaxate ñu ngi koy gërëm ba baax a baax di ko jaajëfal imaam ñu ngi lay jaajëfal imaam ka soxna Penda Gaal su nga xam ne mooy suñu jëwriñu kër gi ñu ngi koy seere ak euh, maire yi fi teew sama maire ba beral naa ko loxo muy Ibrahima Thiaw nee naa jant bi am na nu muy demee rek doo leen ko gisa fi léegi léegi léegi mu daal di dem yoonam ndax caw la sant euh, monsieur le maître yi maître yëpp yu fi nekk itam euh, xëy na tur yi sax mënu ma cee jaar waaye maa ngi ciy jégaloo baax a baax di leen bu baax a baax di ñaan yàlla subhaanahu wa taala mu defal na jàmm ci biir ak ci biti yàlla na sàmm Sénégal sàmm njaboot bi yàllaa xam li gën ci nun yàlla nañ ko yàlla defal yal na yàlla defar pénc yi defar xol yi te it aada gi itam ñu xoolaat ko aada ju baax lislaam dàqu ko cooy day dugg ci almaslahatul mursala benn bunt la boo xam ne lislaam da ko fàq noonu ñu koy wax almaslahatul mursala mu nga gën a dëgmal ci lay aada yi yi nga xam ne yoo rafet lislaam alalam la yonent bi alayhi salaatu wa salaam da ko ne alxikmatu daalatul mu'min xel mu rafet jikko ju rafet doxalin bu rafet alalu jullit la bu mu gisee rek na ka naka dem fekk ji ah xoolal Sénégal ni ko yàlla bindee ci wàllu kal ak gàmm ndax kal ak gàmm bokkuñu kal ci wàllu sant yi la gàmm ci wàllu xeet ak xeet la au delà sax ci wàllu dëkk dëkk dañuy dañuy gàmmoonte ñun ñi siin siin yi dañuy ba gal gàmmoonte ak bawol bawol yi ak saalum saalum yi mag yëkkul ak ak ajoor ajoor ajoor ajoor tam di gàmmoonte ak ñan imaam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 ولسواه يسس عرجيمه تسعني إليه والفجار كون بديل من الجار أكرمني بديع الكتاب وشنني عن جاري برتابي لم ينوني إلى دخول للجنة خير البشارات عليه سلم الله لم ينوني سجن ولا وعمري ilal jinaaniidu afalyaa suran marsoona laaw hubban walaa ilaaha illalaaw hadaaniyallaaw wa innahul badi wa xaadanii law bi anwaayil badi mbaraani xaaliqu min siwaaw wa xaadani man laa yuraa sarwaaw kitaabu rabbi kaanani wa kuntaa loolilaayi bii sakkantu tusiyaani lakdaari والمفاسد سلامة من جالب الفاسد أكرمني له بشكري وما لاختار ولي خاد لهما ما بي الله ما بي الله كرام الخراء وببقاء يا نبي سراه بعد ذي الجلال والإكرام لخلدت مراقب الكرام إليها دلوا ما لم يكن ولا يكون أبدا لممكن لست أشك أبدا في كوني جعل البديع جبا لكوني هنا الذي من الإله يوسطى خاب عني كون وفي فست دراني الله على الله بلا تقارل وأمري تقبلا خاب كلاتي مال شعاد مسمى يوسف بلا كساد وخاني الباخي بيشبورا تجارة لدينا تبورا لمن هني مباها هن الله فضلا ولا إله إلا الله يقعد لي بانتياع شمني من كان لي ولي يشاء فشمني أنا الرحيم قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي الله يا ربنا رحمن يا سندي خذ اليدا في سرور الدين anta alkarimu alladi la shakka fika wala nicmaanan wa laka almulku والحفران ضجر مراتب في ذاك البعد والدورع فيه ذا الأعمال أنت ودود ورب واحد السمد ماهي ما يريد مولمي السلام عليكم Madior yow ci sa bopp laa bëgg nga njëkk ñëw toog photographe ngeen may nu dal ñépp toog ndax bu nu nee conférence religieuse ñu bàyyi sunuy itte bàyyi sunuy aajo ñëw di bokk ak yéen jotaay bi bu nu ñibbee war nanu am luñ fi jële ci xam-xam lu yokkaat ci sunu ay mbir lu yokkaat ci sunu diine lu yokkaat ci sunu pas-pas lu yokkaat ci sunu doxalin ci àdduna ajaratu pendangaan sugu li tax ma ñaan monsieur le maire pour mu fekkee sax sama jotaay tuuti mooy nekkul li mu nekk maire bi de déedéet moom yàlla danoo boole démb ak bërki démb ñu bokk daayira addis di daje di waxtaane yonent bi ma xam ni yàlla rekk lay dund yàlla rek la gëm yàlla rek la ragal taalibe Seyxuna Tijaani la ku sell la day dem xadara di wasiifa nekk kenn ci ñun di sunu frère li ma guux ci yàlla rekk li man guux ci yàlla rek moo tax ma ñaan la nga fekke di ziyaar itam Moussa Fall di ko ñaanal yàlla mu wér te gudd fante te yàgg fi waaye ñépp ñoo bokk kàddu gi may wax mooy yàlla kenn la déet ñu koy bokkaale ak keneen te kooku dëkkaleel da nax kooku te képp ku fi bëgg def boppam yàlla ba ñu seetaan la ba ñëpp d'accord sax ni la yow yaay yàlla ba yow nga d'accord ni yow yaay yàlla ba nga dégg ni yàlla du nelaw ba nga fanaane xoole ngir dégg ni yàlla du nelaw non bu bëccëgee nga nga de gémmentu mbaa nga dajjant ndax bët bu añul bët bu añul rek diggante bi ngay nekk nag yow di gémmentu mbaa ngay dajjant mbaa ngay nelaw yàlla ni taluma ko maa ngi ci lépp di def ni jën yi toll ni ngelaw yi tollu ni njanaaw yi toll ni njaay àll yi toll ni doomi aadama yi toll kenn ku ci nekk man yàlla maa lay sàmmal sama bopp sàmm góor góodul yëg man dafa am lu ma gëm de pend dafa am lu ma gëm yàlla moo dogal juddu gi moom génnuma mooy sama wasila waaye tey laa fadla bi urbiyin aw bi arabiyin ila bi taqwallah amul kenn ku gën ci nit nit ku ñuul ak ci nit ku weex lu dul ci ragal yàlla te inda akramakum inna allahi atqakum inna allaha alimun xabi yàlla nee na ki gën a màgg ci yéen mooy ki ma gën a ragal te gën ma jaamu ku dul yàlla amoo kattan ku dul yàlla amoo doole ku dul yàlla xamoo lii xew suba dafa fekk nag ni yàlla bu sampee kenn du sempi bu sampee kenn du sempi mais bu sempee it keneen du samp ndax ganaar bu toppee ñiy taxani mat gisul ñuy bojj xam nga lu tax lu mën a am dugub ak ko ñu nekk nag ci geenu jamono malgré tout monsieur le maire tey conférence bi jigéen ñëf yëpp te beneen place boo dem ñoo fa ëpp macha allah tey bi chercheurs yi ci àddina bi defee testament entre góor ak jigéen imaam chercheurs yi bi mu defee entre góor ak jigéen ñu def test ci ci monde entier gis na ni góor gu ne mën na am fukki jabar jigéen ñi continuer di des kon catastrophe mi ngi am ah jamono toll foo xam ne lu mës a ci àddina te baax jigéen ko baaxal lu mës a taxaw te am valeur jigéen a ko valoriser lépp lu ñuy xool di ko joxoñ ba di ko naw jigéen a fa jiitu kon bu demee ba tey jamono gëlëmal leen jaxase seen xel walla naqariwaayu àddina ci ni ko nit di jàmbate xaw leen tiital ba mën a tunu sol lu jot bu nu doxee seen mbedd ci mbedd seen yaram nekk ci biti ñu dem ba tey ji yoonu seytaane yoonu seytaane ak bakkan may ñu mën a am carte ni kii kat day jaay boppam te ñoo jur yonant yi ñoo jur walliyu yi ñoo jur président yi ñoo jur ministre yi ñoo jur bu zamaan yi te avant Seydina Muhammad ku fi am doom bu jigéen dangay ngay suul ko Seydina Omar buñ ko laajee lu la gën a naqari ci diine lu la gën a naqari ci sa dund gannaaw bi nga duggee ci diine dafa ni balaa may tuub ma am doom bu jigéen di ko nëbb di ko nëbb di ko nëbb ba mu am huit ans ma ñu boole ma ma xam ni dañu nar a rey sama doom dañ ko nar a gasi suul maanaam ma ni balaa kenn di ko suul man Omar ibnul Xattaab naa ko suulalil sama bopp nee na ànd ak sama doom génn di dem ñu dem ba ci àll ma gis ni fii làqu na man Omar ibnul Xattaab may gas pour suul sama doom jëf waaw lii laa gëm di dund yàlla di joxe ah monsieur yow di ma xool rek Seydina Omar nee na may gas bi ma demee ba am benn hauteur bi nee na suuf si bu ma gasee day ñëw di dal ci sama sikkim nee na sama doom bu jigéen bi am juróom-ñetti at ma indi ko pour suul si ko daf ma takkoon daf maa bëgg nee na mi ngi may fëggal sama sikkim naan ma papa yaa ngi takk suuf macha allah na leen ñëpp toppandoo loolooy neexal conférence di jóg di joxe tey déglu mu ni kayfa takfiruuna billahi wa kuntum amwaatan fa ahyikum summa yumitukum summa yuhyikum summa ilayhi turjaun yàlla mooy wax nag yàlla nee na nan nga may mën a weddee man yàlla ndax bi ma lay bind lu dee nga fa ahyeekum te dinaa la dekkal suma yumiitukum te dinaa la rey summa yuhyikum te dinaa la dekkal waaye summa ilayhi turjaun boo dekkee ci man ngay tàbbi mu ni xoolal xoolal jërëjëf waaw nii dafa baax xoolal eh yéen laay waxal penda yàlla ni xoolal yaw mi nga xamante ni maa ngi la bind ci diggante suuf ak ban imaam ci ndox mu bon boo xam ni bu la taqee bul ma jàkkaar lool man yàlla di ma ñaan en tant que seto min bayni sulbi wa taraibi innahu ala raj'ihi la qadir yawma idin la tabla sarair fama lahu min quwatin wala nasir yàllaay kenn yàllaay dëgg yàlla wóor mu ni kon xoolal bu jotee amee ci sama diggante jàmb góor ak bu jigéen man yàlla danaa génne ndox ci ku góor ki génne ndox ci ku jigéen ki boole ñaari ndox yooyu teg ko sama diggu loxo samay malayka tàgg leen ma ci ñu dar ma ñeent fukki guddi naan ma tabaaraka alladi bi yadihi l ko wa huwa ala kulli shay'in qadir tabaraka alladi zi lmulki waljabar tabaraka alladi ya za aljalaali wal ikram minha xalaqnaakum wa fiha nuidukum wa minha nuxrijukum taaratan oxra yàlla nee na bu ma ci bàkkoo ba mu am ñeent fukki guddi pendangaan ma jël ndox moomu def ko ci ndaw si mu doon lumbu dara léegi nag képp ku yëkkati mbagg war na dégg képp ku tëgg dënn war na dëgg que yàlla bi mu lay bind mu ngi la jëlee ci ab deret ab ab ab deret ndax nee na ndox moomu gànnaaw bu ma ko defee ci ndaw si conservé ko ñeent fukki guddi yoo xam ni day nekk deret ñeent ki guddi ya cay topp dama koy concentré mu nekk aw lumb mu demaat ñeent fukki guddi man yàlla ma soppali ko mu nekk suux nekk yàpp rek ñu dawal ñeent fukki guddi ma dugal ci ruu yàlla buur bu xarañ la ndax nee na damay bañ bind nit ba pare dugal ruuxam ñu naan ba muy bind ki ruu gi ci bakkan yi la ko jaarale wala ci bët yi wala ci gémmiñ gi yàlla nee na ruux laay jëkk kaste ci doomu aadama ñu dawal ñeen fukki guddi yàlla nee na ma ëw koog der ñeen fukki guddi yàlla nee na ma dugal ci ay yax ñeen fukki guddi alhamdulillah wa sallallahu wa sallama ala rasulillah sayidina wa mawlana muhammadin wa man wala assalaamu aleykum wa rahmatullahi wa barakaatu <coughs> mbokk yi ñoo ngi nuyu di leen ziyaara di leen ndokkeel ci weeru tedd wi ñu nekk di weeru koor waaye di leen ndokkeel ci jataay bi tedd bi ñu nekk di jataay yu fàttalante sunu diine <clears throat> di ñaan sunu borom tabaaraka wa lépp lu koor gi làmboo ci aw yiw yàlla buñ ci kenn ëppale di sant mbokk mi nga xam ne moo daaneel kàddoom léegi ci kàddu yu am solo yi mu doon wax di sant mbokk yi doon yëkkati it xam naa waxtaan wi du gudd ginnaaw bu mbokk yi sàkkoo ñu fàttalante ak yéen ci tomb bi mbokk mi doon wax léegi te muy lu mat di fàttali jamono ju nekk waaye rawat na jamono ji ñu nekk lislaam dafa am aw tëraliin woo xam ne day day séddale yëg-yëg yi di séddale responsabilité yi di séddale xàq yi di sàmmloo askan wi xaq yooyu dox seen diggante xaq yooyu nag bu ñu ko sàmmee ku nekk àq ji mu am ñu jox ko ko tomb bii ñuy waxtaane loolu rek lay doon du ko génn mboolem ñi séq dun bi ku ne da am ay man-man am ay sañ-sañ am ay xaq sa digganteeg sa moroom fi nga yem fi la sa morom tàmbalee lislaam nag bu loolu lépp amee mu doog leen a yeew ci genn buum boo xam ne daf leen lëkkale maanaam ngir benn leen alxayaatul ijtimaaya nag muy sunu wàllu dund ci wàllu social lislaam daf ko réglé lool xëy na waxtu wi du ñu may détails yu sori yi dëgg-dëgg du ñu bëgg it xëy na répété wala jaar ci côté bi nga xam ne professeur ji bi doon na fi jaar donte xamuñu dëgg-dëgg yi mu jaar waaye dañ ci moytu lu ñu man ñëw gën a insister ci côté l'islam bi doomu aadama dafa munta dund moom dong doomu aadama dund moom dong faaw mu ànd ak nit ñi ab dund naam laa yaishu munfaridan kama qaala cheikh munta dund moom dong faw mu ànd ak nit ñi boo amoon junni junni junni milliard du tee nga soxla ku ñu wax ab maçon ngir mu tabaxal la soxla électricien ngir mu liggéeyal la soxla menuisier wala soxla carreleur soxla peintre kat mënul ñàkk a soxla doomu aadama yi doomu aadama mënut a dund ca soxla wut doomu aadama yi faaw mu mu jaxasoo ak nit ñi kon doomu aadama nag moo tax do yàlla tëralil ko nan lay jaxasoo ak nit ñi doomu yi ngay jaxasool yow yow yi nga njëkk a séqal ak dund mooy sa ñaari waajur ña ca jiitu ci tomb bii ñuy waxtaane ngir la war a am ci seen diggante lépp am ci ñaari waajur ñoo jiitu ñaari waajur di ndey ak baay ñoom ñaar lislaam jox leen ay wàccuwaay yu rëy jox leen ay cër yow war a sa diggante ak ñoom ñoom ñaar ñëpp la yàlla sàmmlu ñoom ñaar ñëpp la yàlla digle ñu rafetal sunu diggante ak ñoom wa qada rabbuka alla taabudu illa iya wa bil walidayni ihsana imma yablughanna indaka alkibara ahaduhuma aw kilahuma falaa taqul lahuma uffin wala tanharhuma wa qul lahuma qawlan karima waxfid lahuma janaaha dulli min arrahma wa qul rabbi rahamhuma kama rabbayaani saxira yàlla ne sa ñaari waajur li yàlla gën a bëgg mooy ko jaamu li yàlla gën a bañ mooy ko bokkaale lu mu ca rek ñor na ko mu ne sañaari ñaari waajur na nga leen jox cër na ngay rafetal jëme ci ñoom na rafetal jëme ci ñoom dal ne bu ñuy dund ngay dund fii ak sa sa baay bu xëyee nga xëy sa yaay bu xëyee nga xëy jafe-jafe mën naa am waaye fan la mbir ma amee solo dëgg-dëgg mooy bu sa yaay wala sa baay demee ba tële ba màggat wala ñoom ñaar ñëpp ñu màggat imma yablughanna indaka al-kibara ahaduhuma kenn ci ñoom màggat aw kilaahuma wala ñoom ñaar ñëpp ñu màggat seeni service day bari wa man am nuammirhu nanqusu fil xalq yàlla day inversé seen dund ilaa ardalil umur ba ñu àgg ca dund gu ndaw gañ nekkoon delluwaat nekk ay liir yaa leen war a jox ñu lekk yaa leen war a jox ñu naan yaa leen war a sang yaa leen war a tëral foofa la waajur jafe jëflanteel mbokk yi moo tax yàlla ne boobaa bul wax benn baatu jéppi sa waajur baatu jéppi foofa wax baat booy nuru jéppi sa waajur meccitu wala gëdd yëkkati sa kàddu yàlla nee na bul ko def fala taqul lahuma uf bul ciipatu bul meccitu bul bul wax lenn lu nuru jéppi sa waajur woowu nga xam ne mii ngi lay ay service ndax yaa fi jaaroon wala tanharhuma bu leen gëdd bul yëkkati sa kàddu ci kanam sa kàddu waajur nga ne yàlla nan laa def mu ne waqul lahuma qawlan karima na nga leen di wax wax ju tedd ñoom say waajur lañ nga ne ko man kilifa laa borom alal laa borom xam-xam laa borom daraja laa mu ne la waxfid lahuma janaaha dulli àndal ak sa daraja ji sa xam-xam bi sa alal ji nar meelu ci suuf raamal sa waajur toroxul sa waajur waxul rabbi rahamhuma ña nga ne tolloo nan yàlla yàlla nga yërëm sama ñaari waajur kama rabbayaani saxiiraan nañ ma yare woon ba ma nekkee ndaw kon ñaari waajur ñoo jiitu ci tomb bi ñuy waxtaane yonent bi sallallahu alayhi wa nee na ku dund sa ñaari waajur ku dund ak sa ñaari waajur ba ñu faatu ci amoo aljanna booy boo nga tëri xam ne dootoo am aljanna mbokk yi waajur ñoo jiitu ci ñëpp ñoo ñoo ëpp daraja ñëpp ñoo ëpp wàccuwaay ñëpp amul kuñ leen di gam-gam leel waajur amul kuñ koy gam-gam leel damay faral di wax ne sa baay soxla ñaar téeméer yum jënde suukar kilob suukar nga romb ko fa jël ñaari junni joxi sëriñ ba danga koy yàq amul njariñ ñaari junni ya nga jox sëñ ba bàyyi sa waajur mu yitte woo ko nga romb ko da nga koy yàq amul njariñ moo xam sa baay la moo xam sa yaay la sa baay yitte woo xarum tabaski mënu ko am nga jënd xarum tabaski mu mag dem yitte sa sa sëriñ da nga koo yàq ndax boo demee ci sëriñ bi bu ma doonum sëriñ boo ko waxee ne ko sama waajur yitte woo na ko danaan la demal yitte ko sa waajur sëriñ Tuubaa ku ma sa jébbalu ci moom danaan la ndax am ngay waajur ñu ne waaw ñi ngi dund mu ne waaw mu ne kon da ngay takkoo da ngay ñëw di siyaare ji dem dellu toppatoo say waajur daawul nangoo téye kon waajur moo jiitu ci lépp bu jàllee ñaar ñaari waajur yooyu kenn moo ci jiitu ndey ndey moo ëpp daraja moo jiitu nit jaan ñëw ci yonent bi sallallahu alayhi wasallam ne ko kenn mooy koo xam ne war naa topp ci ginnaawam di topp ay bànneexam def ay ndigalam di bàyyi ay tereem ngir am ngërëmul yàlla mu ne ko sa yaay mu ne ko bu jàllee mu ne ko sa yaay mu ne ko bu jàllee mu ne ko sa yaay mu ne ko bu jàllee mu ne ko sa baay sa yaay ñetti yoon doo ko wax sa baay loolu ñëpp xam nañ waajur wu jigéen mooy ëmb juróom-ñeenti weer lan lañ ko tuddee ñun wolof lan la ko wolof tuddee daa tollu nan ab diggante daa tollub diggante diggante boo xam ne mën na koo romb man na caa des ñu ne daa tollub diggante bu amee doom ñu ne lan ñu ne mucc na mooy faatiwu ca mucc na moo tax ma ñu doon wax mucc na waaw ku am doom dañ daan mucc na de ndax mënoon naa des ca diggante booba ndax diggante boo xam ne ay nit nit des nañ ca day faral di ne bari waa na góor guy wax naan doom ju góor la bëgg di ko bàkkoo bu ñu ne woon yow góor del ëmb bu doom ju góor desee ëmbal doom ju góor jigéen ñi ëmb doom jigéen góor gu ñu ëmb dootoo ëmbaat li nekk ci coono bi nekk ci ëmb moo tax yàlla nag ñoom ñoo jiitu ñu ëpp wàccuwaay moo tax kon ku bëgg sa ku nekk ak ñoom war a fexe ba dab seen bànneex dox seeni bëgg-bëgg moytu seeni tere day faral di wax ne bari waa na koo xam ne mi ngi jaaxle ci ay mbir di ko wuti dem ci am njabar wala ab ab ñaankat weexle fa lu baree baree baree bari te fekk ne wallaahi am na fu gënoon yomb mooy bu saraloon xolub yaayam wala mu saral xolub baayam ba mu siggi xool ko bët yërmaande aajam faju léegi nag nit ñi duñ def loolu nit ñi dañu romb seen waajur yi mu yittewoo aw 1000 francs wala 5000 ñu naan ko yëruma ko xaaral ba ci kanam dem yut sëriñ ba jabar ba 100000 francs 200000 francs loolu mooy réere ki nga am waajur yi waajur bët yi bët yi bët yërmaande yi mu day xool rek day jeexital ci yow ku ne xam ne am on on du nampal doomam day for yi ba ñëw rek ñëw di xool doom yi ba doom yi suur yàlla mooy karim loolu loolu dogal moo tax boobaa kon waajur moo ci jiitu ci loolu ci lépp lu ci dund ci ak nit waajur moo ci jiitu jox ko xàq yi nga xam ne moom nga ko war a mu jeex duñ bëgg a yaatal lool ndax waxtu yi waaye yaay ni ñu doon wax léegi danañ ci joxe benn xissa bu ci menn misaal. dafa am ku ñu wax alxama ci jamono yonent bi sallallahu alayhi wa sallam dafa toll ci di ab diggante di bëgg faatu di sukuraat yonent bi yebal sayyidina Bilaal ibnu Rabax ne ko boo demee na nga taw ci wetu alxama wax ko baati seere yi mu wax ashhadu an laa ilaha illa allah wa ashhadu anna muhammadan rasulullah ndax mu mujj ci aw làmmiñam mu mën a faatu dem aljanna Bilaal ñëw di wax alxama baat yi mun a fexe ba alxama wax baat yi Bilaal dellusi ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ne ko alxama maa ngi koy sa baati seere yi mënu maa fexe ba mu wax ko yonent bi daan ne ana ay waajuram ndax ñu dund ñu ne leen ñu ne ko yaayam de faat baayam faatu na waaye yaayam moom mi ngi fi mu ne nañ ma wool yaayam ñu woo yaay ji mu ñëw yonent bi ne ko sa sa nag sa doom ji sa diggante digganteem ak jaamu yàlla mu ne ko ku mën a julli ku mën a woor ku mën a jàng alxuraan ku mën a ku mën a yudut jeex mu ne ko sa digganteek moom nag ndax yow gërëm nga ko mu ne ko man de gërëmu ma ko yonent bi ne yaay ji lu ko mu ne dafa jëloon soxnaam teg ko sama kaw moo tax gërëmu ma ko yonent bi ne ko yow ñàkk gi ko ñàkk gërëm moo tax yàlla fas làmmiñ wi ba mënut a wax baati seede yi nga xam ne bu ko waxee dem aljanna yow yaa tee mu mën a dem aljanna boo ko jégalee rek baati seede yi mu mën a wax baati seede yi. kon jégal ko mu ne fi mu jaar man xalaatuma koo jégal yonent bi daal ne bilaal demal indi matt ñu indi ko fii léegi ngeen indi alaxama ñu lakk ko ñu taal ko ci kanam yaayam ginnaaw noonu rek lañ koo def yaay ji xolub yërmande bi daal di ju daal di yëngu mu ne ko sama doom ñu ne ko lakk mu ne waaw mu ne ko buñ ko lakkut fii dañ ko lakk fële mu ne boo ko jégalu dañ ko lakk mu ne waaw mu ne kon de jégal naa ko yonent bi sax daal daal di ne bilaal demal xool ba xam alxama li yaay ji wax àgg na ci xol bi wala dafa bëgg a bu àggut ci xol bi du tax làmmiñ wa du fecceeku bilaal bi muy dugg nekk alxama bi dégg mu naan ashhadu an laa ilaha illa wa ashhadu anna muhammad rasulullah dal di faatu kere bi mu faatoo bi ko yonent bi denc dafa mer ba xar kanam bi xonq mu ne giñ naa ci yàlla mi nga xam ne sama bakkan ci loxo nu nekk képp ci yéen ku ci jël sa soxna te ko sa kaw waajur dee moo dox sa diggante ak sawara kenn mënu ci yow dara waliyaadu billah léegi ñaatoon nga gis soxna yoo xam ne dinaan dinaan waaji munu maa nekk ak sa yaay maire bi mënumaa dëkk ak moom da may apartement appartement mënumaa nekk ak sa yaay ku mënut nekk sa yaay mbokk yi nga nang nga nangoo ànd ak moom nangoo woon ginnaaw sa yaay bari na fi lool ca loolu mbokk yi dara jëru kon la ci jiitu kon mooy ay wajur léegi tege mooy ak ak mbokk ñi nga bokkal ñi nga bokkal nag ku nekk daa àq ku la mag koo mag koo tollool Sëriñ Tuubaa nee na ñett ñoo ñoo nekk société bi koo mag ku la mag nee na ki nga xam ne yow yaa ko mag dee ko yërëm ki nga xam ne moom moo la mag dee ko wormaal ki nga xam ne dangeen ngeen a tolloo def ko ne si bopp ñooñu doo nga fi nekk bu doon société bépp nii lañuy ñuy dundee yaakaar naa jàmm dana ne ñooy bu doonoon tey nit ki ña mag danga koy yërëm ni ko ndeyam ak baayam di yërëme kal abbi wal ummi la wax wa tawxiilul kabir na ko ndeyam ak baayam doon yërëme ni ñu ko war a yërëme magit ngay nga war maal ko wa jaalu mislika ka nafsika sawa ku tolloog yow nga jox ko sa bopp ñu ne boo bëggee sa dund sa digganteeg nit ñi neex wa kun ma an naasi jamian dahraka kama tuhibbu an yakunu maaka nee na ni nga bëgg nit ñi dunde fa ak yow donte dunde ko ak yow yow dunde fa ak ñoom noo bëgg nit ñi def la ko ci war maal ci suturaal ci teral ci jox cër yow bu la ko nit ñi def def ko nit ñi yow boo ko defee nit ñi rek nit ñi dañ la ko delloo bari waa ne lu di dàmbat nam ko nam ko ñàkk joxe nit ñi tax waaye bu ñu ko joxee nit ñi delloo kon kon ñooñu ñoo am ci li ñuy wax société bi ñoo ñoo ci am seenu dund sa diggante ak ñoom nag war a rafet war a rafet bu baax a baax a baax a baax ñooñu ngay dundal nag kër gi di fami bi ñooy màgg koñ bi ñooy màgg nekk dëkk bi ñooy màgg nekk nekk réew mi bal ñooy màgg nekk sax àdduna bi koo dageel ci àdduna bi rek war a yëg ne seen dundin dafa war a rafet sa diggante ak moom daa am ay mbir nag yoo xam ne mooy tax aw dundin mën a rafet te yooyu yëpp mi ngi basé wu ci ay jikko yu dox ci diggante nit ñi la jiitu mooy maanaam yëg gi nga war a yég yég gi nga war a yëg ne kii sam nawle la yëg gi nga war a yég ne kii sam nawle la mbokk mi koy dundal ku nekk yonent bi sallallahu alayhi wasallam dafa nga jàppe ko ni sa bopp jàppe ni sa bopp mooy lan lu rafet ci yow lu baax ci yow booy boo nga xam ne moo rafet ci moom moo baax ci moom waaye lu ñaaw ci yow lu bon ci yow loo loo bëggut mu jëm ci sa kaw nga jàpp ne sa mbokk mi moo ñaaw ci moom moo bon ci moom moo moo jaru ci moom bu moo ñaawal sa bopp jékku ci yow nangu woo ko sol wala bu la ko ñaawal doo ko sol bul ko ñaawal jàmbur bul ko solal wattandiku bu baax a baax sa diggante ak moom xàq yi dox ñoo koy faral di waxee yamal xiyam bàkkaar yi dox diggante nit ak jaam nit ak yàlla bu ko jégguloo mën na ko bañ a tardeel waaye àq yi dox sa diggante ak sa moroom doomu aadama lu ku am problème yamal xiyam moo la yóbbi ay problème moo saa bu nekk war ngaa gëstu ñi ngay dëkkal ba jàmm ji war a dox seen diggante war ma ji war a dox seen diggante cër yi war seen diggante nga sàmm ko baax a baax loolu nag la koy waral mooy da koy xam kon li ci jiitu mooy jaf ko ni sa bopp mooy ak nawlonte ak nawlonte ak nawlonte ki nga nawloo moom nga jàppee ni sa bopp jàpp ne kat lépp luy luy mbir mi luy rafet sa diggante ah, sa der mooy rafet ci moom luy baax ci sa der moo baax ci moom loolu doomu aadama ju nekk war na koy bàyyi baax a baax ci ci lu rafetal sa diggante ak ñi nga ñi nga ñu ngay dund loolu mooy waral ba lislaam nag ngir ñu ñu tënk-tënk bu gaaw lislaam looloo waral mu am lu ñuy wax al adabul ijtimaiyatul amma nan lañ war a jëflantee ñun nan lañ war a jëflantee ngir dund gi sell la ñu jiitu mooy ñun l'islam daa tërël aw tëraliin am ay comportement yu ñu melloo am ay jëflante yu bëgg ñu jëflante ko l'islam dafa wax ne maanaam wax am nuyoo nuyoo ñu dëkk ñu nekk l'islam da leen dugal digal digal ab nuyoo nuyoo boo waxee nuyoo xëy na ñu bari mën nañoo jàpp ne lu lu garaawul daal maanaam daanaka jërta waxtaane ak jara waxtaane adabu salaam teggini nuyoo dañ ko war a jàngalante l'islam doo xam ne ki nga dëkkal moo xam koñ bi moo xam dëkk bi moo xam danga nga koo romb moo xam nu mu doon daa war a am lu dox seen diggante kii dox moo war a nuyu ku toog ku dugg luy luy daw moo war a nuyu ki muy romb ñu ne ko nan nga ko nuyoo mu ne da koy wax asalaamu aleykum asalaamu aleykum wa rahmatullah mbokk yi njaay jóob faal jaw yooyu ay complémentaire la waaye du ay nuyoo nuyoo sa mbokkum jullit mooy nga ne ko asalaamu aleykum mooy yàlla na yàlla jël jàmm def ko ci yow asalaamu aleykum wa rahmatullah yàlla na yàlla jël jàmmam ak yërmandeem def ko ci yow asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakatu yàlla na yàlla jël jàmmam ak yërmandeem ak barkeem def ko ci yow yonent bi sallallahu alayhi wa sallam dafa wax ne lan tadxulul jannata xatta tuminu walan tuminu xatta taxaabu ala adullukum ala cheyin ida faaltumuhu taxaababtum afshu salaama baynakum yonent bi sallallahu alayhi wa sallam nee na nee na du ngeen tabbi aljanna lu dul ne da ngeen nekk ay julit seenu njulit mënut a rafet benn yoon lu dul ne da ngeen a bëggante dangeen ngeen a bëggante daal ne ndax du ma leen tegtal loo xam ne bu ñu ko defee bëggante ñu ne ko ah kay mu ne dee leen siiwal am nuyoo seen diggante kon nuyoo simple asalaamaaleykum jooju mbokk yi day tax ñu bëggante day tax société bépp bëggante buñ buñ bëggantee suñ ngëm yàlla wér suñ ngëm yàlla wér ñu am aljanna kon escalier la ay escalier kon teg gi nuyoo yooyu lu mat a la ñu mat a jàngalante la. ñaari jullit ñu joxante loxo ñaari jullit ñu joxante loxo nuyoo nga téye sama loxo ma téye sa loxo bul ko xeeb mukk yonent bi sallallahu alayhi wasallam ñaari jullit bu ñu joxantee loxo di nuyoo di saafonte di moqatante ay loxo seen bakkaar day mel ne xobi garab yu wow koŋ ngelaw lu am doole romb ko xob yi na muy ruuse noonu la bakkaar yi wàcc ko wàcce joxante loxo mbokk ko naan man diw séqu maa moom dara nuyoo doo nga leen séq séq lu nuyoo mooy da nga nan la nit li la wax naa la yàlla yàlla jël jàmm ak yërmandeem ak barkeem def ko ci yow nga di ko bañ nit dana la ñaanal loolu guddeeg bëccëg nga di ko bañ mu def lu mat a bàyyi xel siyaarante société bi ñi ko séq dañoo war di nemmi konte dañoo war di seedante dañoo war di seedante ci liy dundal seen dunduk social seen vie sociale mooy ñuy nemmi konte nañuy seedante lu waay nekk na ko moroom ma xam seedante googu nag mbokk yi di li dudal moom it lislaam da ko wutal ay dawaabit de du jaagi ne neex dem seetan yi déedéet lislaam dalaa wax ne la bala ngaa dem kër nit li ñuy wax naan jël rendez-vous kooy seeti ku ne war ngaa jëlee moom rendez loolu lislaam jàngal de danaan sëñ Fallou Ndiaye ndax suba da nekk sa kër mooy la heure ban nga ne ko ay 11h midi mu ne waaw incha allah dinaa nekk sama kër nga bàyyi ba dix jot ci suba nga woowaat ko ne ko ndax sëñ Fallou yaa ngi sa kër moo la waaw amu programme génn fenn mu ne non amu programme génn fenn nga ne kon maa ngi fay si la fekk sa intention sa sa yéene mooy yendu waaye doo ko wax loolu boo ñëwee nuyoo maslaa ba ci kanam nga ne kon maa ngi dem mu ne la déedéet toogal da ngay yendu nga ne ko nga damay dem mu insister ba nga xam ne amul benn programme nga doo ko yendu boobaa kenn dal lu neex lay doon waaye bu dee da xëy rek ñëw wékk sa dara wékkal sawaay naan ko yow laa yendu sil fekk mi ngi ci programme yoo xam ne loo wax du ko saf loo wax du ko saf mënoo wax lu ko neex fekk na yow yow yaa defu teggin yi la lislaam jàngal dangaa waroon a yëglu yaa waroon a yëglu moo tax lislaam di ko bëgg ziyaaraat yooyu day dundal suñuy xol nemmi konte yooyu day dundal suñuy xol waaye it lislaam ne bul ko jegeel bul ko jegeel zur xibban te zur xibba boo bëggee nit sopp la bul def fuñ jeesu gis la boo bëggee nit ñi sopp la bul def fuñ geesu gis la ana diw mu ne léegi mu agsi de sa bu dee agsi gu léegi mu agsi de man xam nu def ba heure bi waaye heure bi daana ko fekk foo toll yaa ngi kër sawaay déedéet loolu du noonu kenn mu jë dëkk moo tax islam daa bëgg ngay soreel ngay soreel ñu lay namm ak nammeel daa baax léegi-léegi mooy boo siyaare jee nit nga fexe ba xam ay bëgg-bëggam yam bëgg koo waxtaanee ak ko nga koy waxtaanee moom yami moytu nga koy waxtaanee moom nga koy bañ a waxtaanee moom lépp loo xam ne mën na leen a féewale ñaar bu ngeen ci waxee du ngeen ci déggoo jugé boobu bu ci dugg lépp loo xam ne bu ngeen ci waxtaanee bu ngeen ci du ngeen ci déggoo bu leen yaa ko seeti yow yaa ko seeti yow mi ko seeti war nga cee bàyyi xel kon baax ci ne kon man mi ko seeti naa sàmmante ak loolu ni la ko lislaam jàngale lislaam ne lam yow booy seeti nit ba àgg ci kër ga daf laa digal aw aw melokaan l'islam mbokk suñ dund ñu bayu ci dara détails yi amul ba détails yu mu bàyyi booy seeti nit la ko dalee ca buntu kër ba bu dee da fëgg fëgg booy fëgg l'islam da wax nan nga war a fëggi ab bunt imam Malik nee na benn taalibe imam Malik nee na bu ñu masaan fëgg buntu kër imam Malik suñ cati wee waxut cati baaraam de cati wee la naan kos kos ci bunt bi fëgg bunt bi ki ngay seeti boo fëggee bunt bi amaana mën laa laaj kookan la mën naa am ñu jël jël jëfandikoo fon bi ne la kookan la loo miin miin kër gi waxal sa tur waaye bul wax mana mana Abu Hurayra nee na dañoo toog ba càgg am ku ñëw fëgg yonent bi yonent bi salaam ne kookan la mu ne mana yonent bi daan mana mana mooy lan daf koo jéppi ndax dangay wax sa tur boo duggee ci biir kër gi ki nekk ci biir néeg bi l'islam dalay wax nan ngay dugge ci néeg danaan la bul jàkkaarloo ak rideau bi en face nga ne bu rideau bi naawee nga jàkkaarloo lu nekk ci biir néeg ba dangay ngay def à côté gauche wala droite rideau bi féetale gauche wala mu féetale droite nga xam ne yow yaa ngi jàkkaarloog fii côté bi ci des bunt bi féetale nii boobaa bu rideau bi doon naaw ba suba doo gis nekk ci biir nga ne asalaamaaleykum benn yoon kenn waxut l'islam ne la neel tekk ba mu julli amaana day julli nga bàyyi ba ci ba mu diir nga ne waat asalaamaaleykum ñaari yoon ñetteel yoon nga ne asalaamaaleykum boo waxee ñett yii nag sa ñetti salaamaaleykum jeex na lii la war mooy tournée am na ñoo xam ne bu defee noonu nag ci la ñuy doog ko wax rude bi bu fi kenn defee nu ah ngeen baal ma man damaa kan kenn néew fi fekk ñi fi ne mën nañ laa bañ soxla fi ñu nekk boo jàngee teggin islam rek seen relation seen dundin bi ci wàllu social dana rafet ndax da nga jëfandikoo. lislaam ne la boo duggee bu buñ la dalalee ba noppi buñ nee la kaay toog fii fañ la dalal dal fa fañ la dalal dal toog fa léeg-léeg koo xam ne dañ koo naan ko kaay toog fii mu insisté di toog ci koo daa baaxut daanu ba noppi fekk borom kër gi moom xam ne ne sées bi baaxut moo tax fii la la toogloo léeg-léeg gis ku ne kuñ ne toogal fii ci kaw mu déedéet déedéet man sama ab taal bi daal fii laa toog fii laa toog fi muy toog nekk café fii tuuru ba dañ koo wax ne café kee tuuru yëre yàqu na moo dañ naan leen fi ñu la toog loo rek toog fa mbokk yi lislaam bayut yéen détail boo toogee ba noppi boo toogee ba noppi lislaam ne la nag sa gis bii na ko téye sa gis bii na nga ko téye ñaata nga gis ku digg kër nit génn naan gis nga ndombaam ya ndomba yi mi ngi ci côté rondal gi sii sa waay li yor ci gàllaaj kan moo la xolloo ndombay jàmbur ku la xolloo leen jàmbur kenn mënu xolloo moo tax lislaam li mu jàngale kum doon ci ñun mbokk yi war na ci sukkandiku war na ci bàyyi xel danga war a téye sa jës kon noonu lislaam digle ko nga toog bul di yàgg ci ab jataay lu ëpp boo xam ne wa ki nga fi seet si da nga jaar programme wuñu la woon bul fa bul fa yàgg saa boo gisee ay nit ñuy nuru luy gisee bul xaar ku la soxla naan la may ñu yaa war a génn yow da ngaa seet si borom kër gi am ku ñëw mu leer na kii kat ma ma laa meex maanaam melokaan yi ngay gis ci moom daa soxla borom kër gi bul xaar ku ne la ma may leen may leen may ñu la dëgg mooy xaar ñu ne ko may ñu pour ko def kon ziyaara yi mbokk yi lislaam daf koo digle day dundal sunu dundinu social waaye teg gi nii la ci làmboo ak yeneen ak yeneen waaye duñ bëgg léegi mooy boo fa jugee boo fa jugee bul nett li boo fa jigee bul nett li nett léwu la dara ndax ndax ndax mbokk yi nemmi konte googu di dundal suñu wàllu dund suñu dundun social ndax seeti képp la man déedéet téléphone téléphone mën na ko mënoo seeti sa mbokk mënoo seeti sa dëkkandoo ni nga bëgg a rataxale seen diggante mënoo ko ci ndax temps bi may ko téléphone mën na ko waaye téléphone moom it lislaam wutal ko ay dawaabit ay teggin yoo war a jëfandikoo téléphone lislaam dalaa wax ne la booy téléphone daa am noo koy jëfandikoo la ca jiitu mooy boo woo nit ki téléphone bul insister woo nga nit ki mu sone ba dagg nga woote waat mu sone ba dagg nga woote waat mu sone ba dagg ñetti yoon xaaral ab biir nag fi mu nekk ndax mën na laa jël ñaata yoon nga dégg nit ñi yàqoo dama koy woo du ma jël woo naa ay yoon jëluma waaye amaana téléphone baa nga ca saal ba muy charge amaana téléphone baa nga ca oto ba amaana téléphone da koo silencier amaana day julli amaana amaana amaana dogal ko ngant da ngay dogal ngant sa mbokkum jullit boo wootee ba mu décroché wuy la bokk na ci li nga war a njëkkee yitte woo mooy mbaa fekk mën ci yitte mbokk yi soo woote nit téléphone la nga ko war a njëkk laaj bokk na ci mbaa fekkuma la nga nekk ci ay yitte boo nekkee ci ay yitte ma bàyyi ba ci kanam ñu déggante dama laa soxla mu ne déedéet man ngaa wax de amul benn problème man ngaa wax man maa wax mu ne waaw man ngaa wax kay nga doog ko tàmbali wax waaye jot nit ki téléphone rek tàmbali di wax ba jàgg moom moo mujj na ah xam naa nga may ma tuuti rek may ma tuuti rek ma àggale déedéet yow boo ko laajoon rek day ne ba ma mayoon fii ak 5 minutes wala fii ak 10 minutes teg gi nii nga war a jëfandikoo. buñ la buñ la décroché kookan la bul yàq temps bari nañu koy def loo kookan la au lieu nga mën Alxaaji Njaay nga nekk naan saa yi xamuma kon xam nga sa baat saa yi kon enregistré sama numéro saa yi foofu nga tolloog man maanaam du wax lu dul jeex loo xam ne yaa ngi yàq temps jàmbur du yàq sa temps jëru ko waxal ne mën a diw bu jeex waxal mën a diw bu jeex boo woo nit kii na nga gàttal na nga yem ci yitte nan woote bi na am objectif wax sit fi machik na am objectif bu tax nga koy woo boo waxee ne ko dama laa doon nemmeeku dama doon jokk mbokk gi lépp objectif la ay yitte nga am mu doon waaye nañ doon teree ca ziyaar ba nga dem nekk fa diir bu dul jeex noonu la ñuy nga téye téléphone lu dul jeex ci nit. Allah ji falli loo loo mooy xalifa billaay Allah ji falli loo rajo Afia danoo bokk ndey bokk baay yéenante lu baax ku ci nekk la sa biir xol ci yéene gu baax moom nga yéene ki nekk ci sa wàll laka ko tàmbalee ci directrice bi di penn ngaan sugg di sëtu sëriñ ji di waa daan sugg naaru darmanko bi di xaritu yàlla ki doyloo rasulillahi alayhi salaam yéene ñëpp jàmm ba ki ci nga xamante ni ki ci gën a ndaw ci rajo Afia naam ñépp sax dañoo jël ne ñëpp ñoo maasoo doon benn amul ko mag amul ko ndaw ñëpp doon benn loolu yéene gu rafet la te yàlla nee na fay naa yéene balaa jëf pend ngan sugg yéene googu la am ci rajo Afia. ki nga xamante ni mooy sunu ndey Mariba di PCA rajo Afia yéene googee la amit ci képp kuy liggéey Afia FM rawatina Emmanuel mi ñu fekk ci inda bi macha allah moom it yéene googu la am ci waa rajo Afia na la ma yéene sama bopp bëgg doon milliardaire loolu laa yéene waa rajo Afia ku ci nekk ter tet góor ak jigéen mag ak ndaw ku ci nekk doon milliardaire la ma yéene sama bopp ci lu baax loolu laa yéene képp koo xamante ni yaa ngi xëy ci rajo Afia lool laa la yéene macha allah Ablaye Diagne ñëw jël yéene googu moom it gën ko féddali ci rajo Afia ba tey yéene googoo waral tey ñu nekk ci douzième édition ndax ustaas yi suñu ginnaaw buñ doon xiiroo ak a ŋaayoo ak ña nga xam duñu ay ustaas kon yaakaar naa ne mbir mi du yegg si fii waaye jëmm ji nga xamante ni gën nañ ko ci ràññee mu féete ndaw muy El man Mansour Mbacc tey gisuñu ko dëgg la li li yàlla li mu namm rek looloo gën ci doomu yaadama mooy def ci moom ab tawat yàlla na yàlla fëgg boppam ci daraje rasulillahi alayhi salaam muy ko baax ku fonk bés bi waaye yéene ga mu moo tax ba tey ji ñu egsi ba douzième édition ànd ko ak la directrice Penangaan Sougou ak képp kuy liggéey rajo Afia waaye nag boo yàggee ay kilifa jataay bi ni mel am danga ni kat tey dinaa dindi ay teraanga sagal kilifa yooyee kilifa yi ñan la tey bu ñu nee conférence religieuse ñi nga xamante ni ñoo féete ci wàllum rélision bi mais ñoom lañ koy jagleel jagleel googu nag parce que ñoom ñoo ci yëngu ñoo naan ñu yàlla nee na yonent bi sallallahu alayhi wa nee na kër di kër tarixa nee nañu ci lu baax ngir ñu doxee noonu bu ëllëgee ñun ñëpp ñoom àjjana kon nag ajaratu mam kumba ndigal gi daa jibee ci penn ngaan sugg directrice boo noppee rek ñu daal di jublu nag ci teraanga yooyu nga xamante ni moom la ñuy jox sunu imam yi fi nekk Pape Mesta An may woo Pape Mesta An chargé partenariat chargé partenariat bu CA na ñëw jege nii mam ma jugal andil ma loolu waaw Momadou Fall kooku ki ma koy njëkk jox muy diplôme bi muy imam ka eh, mënoon naa sax bañ a jël kàddu parce que defe naa ne suba ba léegi ñu fi yëkkati kàddu gi yëpp euh, mat na te rafet na waaye nag faw ñu remercier ñi nga xam ne ñoo di sunu confrères yi fi ñëwoon ci suba ba léegi di ñu jàppale ci wàll liggéey bi mu Badwa TV ak Pikine TV mais également suñu confrère de longue date yi nga xam ne ñoo nekk ndawoon ci rajo Afia FM doon fa def liggéey bu am solo ñu ñëw chaque année bu ñuy conférence ñu ñëw di ci remercier bu baax Moustapha Dieng mi nga xam ne jamono ji mu ngi Sud FM remercier également Abdoulaye Timéra ak euh, Omzo mi nga xam di DJ Omzo ak euh, DJ Cool ñoom ñëpp ñu ngi leen di remercier di remercier sunu naataango yi nga xam ne ñoo nekkoon ci wàllum euh, transmission bi en direct moo xam ma Mamadou du la ak ñoom seen donc kàddu yooyu laa bëggoon yëkkati remercier sunu naataango yi parce que nag métier bi ñoo ko bokk mënoon nañ leen woo aussi ñu jàpp ne xëy na euh, du ñu am jot bi mais tey jii bàyyi nañ seen yitte yëpp ñëw. ñu leen di remercier bu baax di remercier personnel u rajo Afia bi yëpp ndax gis nañ seen taxawaay mais mention spéciale à Mansour mi nga xam ne tey jii xel yëpp a ngi ci moom euh, saa yu ñu organiser conférence ñu dañuy tegle suñu tànk rek bu 10 jotee ñu sañse ba jekk tak suñuy musóor ñëw toog du ñu xam li mu daj yëpp mais ñetti fan yi mujj yi xam nañ ni Mansour doon daj ñu koy ñaanal yàlla mu fëgg boppam nu mu gën a gaay ba mu mën a dellu si si liggéeyam Eh, di remercier ñi nga xam ne déplacé wu nañu ak ñi nga xam bëggoon nañ ñëw te ñëwuñu Mamadou maa ngi lay delloo kàddu gi xam naa ne eh, yow it ñu ngi lay jaajëfal ci liggéey bi yaag maa jot suba ba léegi yéen ngi yor microcentral bi di leen sant di leen gërëm ñu bàyyi rek sunu suñu mbokku eh, Abdoulaye taxaw nii ñu ngi gërëm ñëpp képp ku fi teew si bës bii Euh, sama kàddu sax mënoon naa ko bañ a jël ndax Ablaye waxoon na au nom de la présidente di conseil d' administration madame Marie Ba mais xol bu fees xol bu sedd moo tax ñuy réaffirmer li nga xam moom la ñuy wax muy conseil d' administration bi di wax ne kontaan nañu bég nañu bég nañu ci famille bi nga xam ne moom la Afia doon famille bi nga xam ne moom la directrice bii di Penda Sougou liggéey ba yegg si fii mook ñoom kumba di wax ne metti woon na trop nag mais soo gisee ñun ñu dellu si nekk si conseil d'administration parce que suñuy jigéen nañu gis ñu doon ay jàmbaar ñu ne c'est l'occasion de réaffirmer notre soutien que le conseil d'administration ne laisse ne se lassera jamais de soutenir madame la directrice à tous les agents de Afia FM seen liggéey rafet na ñun kontaan nañu parce que métti woon na trop mais ngeen jàpp teewoo bàyyi parce que fa Afia jógee ba léegi ba suñu yegsee fii man ma ñëw fekkee lu mel nii. man ak Abdoulaye jaañ bi je crois que suñu xol sedd na te loolu daf ñu gën a encouragé ñu gën a jàpp si liggéey bi di wax li si kanam raw li bët encore une fois Penda ñu ngi lay gërëm di la sant di gërëm tous les agents de Afia FM famille bi ngeen doon yàlla ko yàlla sàmm yàlla na yàlla aar ñoom Pape ñoom Madior ñoom ñëpp. ñu ngi leen di gis seen liggéey si yëngatu bi xëy na jot manqué na de waaye ñu ngi leen di suivre bës bu ne di wax ne lii ngeen def nii yàlla la yàlla fay Penda encore nous sommes vraiment fiers de toi li ngay liggéey nii sincèrement foogoon ñëwoon Afia dina fa yegg si mais si kanam rek la jëm tànk kanam rek la incha allah jàppal rek dina baax loolu laa teniroon wax ko à tous les agents à toute la maison de Afia FM di leen remercier encore une fois di leen sant si bés bu rëy bii nga xam ne def ngeen jërë ngeen jëf encore une Recibí la plena proximidad